salaamaaleykum ay waay retardataire seen balaas jëriñ moo def loolu dama ko si ñaabaas waaye léegi nag liggéey fii ñu sant yàlla sant jëmm parce que bi mu fi ñëwee moom laa ko tey lii laata ak laata bi fekk jóge ne caare ñu fi yéen commencé ba benn bés dama ne dama ñu yegg mosul ñu fi ñëw dinaa yàlla fi ñëw suñu laaj dama leen bëgg ni suñu ki moo tax nekk Sénégal bi tey waaw paas naa man effectivement deux deux paasal na ma ba ma dem ba kon lépp dama bëgg am réew mi am fii ci tënkee kii ñu ngi ko fii ci tënkee mu am benn tabax boobu gis mu baax parce que moo ko bëgg parce que kenn du ko jëlee sama si tey bii nga nekk bële moo ji boo ko jëlee ñëpp li ci wax dëgg yàlla dara amul man li ma may sax dama dëkk bu taat yi man daw ji ñëw suñu kër gi ma jàkkaarloo kon bon nee nañu dëkk bu ne ndax tëgg gépp fii tëgg gépp bi ku leen jàppale tëgg gépp nga jàppale si ñi seen bopp jàkka morom ko dëkk ku leen jàppale tëgg gépp nga jàppale ku leen téye tëgg gépp nga téye te nag góor ñi ñu am ñu ñu yàgg suñu perspective bi yàlla sama góor miin xam nga tax laa si bëgg moom moo ni taxu timis kenn du lakk bu nawet bi ndax ngelaw li ndax am na ku ma ne sax bu ku leen di teree lakk ma ne ko ñu ngi wax xam nga loolu taxaw na bëgg a jàmm waaye su ma nekkoon man ma ko ne est diw nee na lu tax nangam du ma ko def xam nga tax mu jabut ko jabut a jàmm waaye tere tere ndax ñun sa bureau bureau bu tàkk li tax ñun ñoo ko jënd suñu xaalis kenn may ma kenn seet si ñu jox ñu ko barki sëñ Babacar waxoon naa la fi ne tëjee ngeen fi nekk dugg ñu kenn dugg seet ñu xam naa ne ñu am rek ku mel ni yow kooku mel nii moo ñu ko defal ñu bëgg nag suñu liggéey yi des dafa ñu ko jëmm ji ndax mu gaaw. ndax daal comme Serigne Touba ma ko Serigne Touba comme Serigne Touba taxaw nga taxaw ma jooy ko dina ko guddi dina ko bëccëg ñaan ko yàlla ñaan ko yàlla jëm ba yàlla indi ko ndax xam nga man lu ma defee man dem koo ñetti fan delloo yàlla ndax li ma bëggoon xam kaw mbal mi mbal mi yëpp koy tànk te jigéen ñi jur leen gënal tey dañu solee naaw moy fuur yi bari fi ba ñoo bu ñuy lakk sax ay blouse la ñuy sol sol ay gaw sol ay gaw loolu mooy hygiène leen gën donc bu ñu demee nag ba andil leen nii grâce à partenaire bi ak yow sa jàpp ñoom dañ lay gërëm di la sant waaye ñun nag dañ kontaan di leen gërëm di leen sant ndax suñu càmmoñ ñoo seen càmmoñ yoroo leen ko defal bu ñu gisee keneen ku leen ko defal day mel ni daf ko def suñu ñu lay si loolu félicité entrepreneurs yi di wax ne lii ñëw na si waxtoom te bëgg nañ ñu gën a yaatu te comme ni ma ko waxee si plan bi sécurité bi gën a yokku fii nga xam ne tey képp ku nga xamante ne da ngay ne sa xel day gën a dal doon nañ la ñu dara te dañuy félicité commandant au passage ak le commissaire de l'office ak le commandant du du parce que depuis ñoom seen présence ba léegi waxuma dëgg amatul délinquance mais mu ngi wàññeeku bu baax. ñu ngi def seen liggéey ñu ngi war a kontaan bu a baax di lii yàlla na barkeel ànd ak xéwal bu bëri ànd ak ñu am kër bu bëri jigéen ñi di lakkat di dem ba euh, Tokyo wala wala euh, Japon ah, am na qualité boo xamante ne pour mu am euh, agrément ñu certifié que mu mën a dem marché nga sa kaw waaw loolu yi rek moo ko mën a jox donc nag suñu jigéen ñi lu leen nit mën a rek doyul dañ leen dimbali ndax bërëb bii lu leen ko gën a defaral moom bu baax di leen di gërëm di leen sant di kontaan bu baax si seen ñëw fii leen wax léegi nag léegi nag lii lii pour lakk jël la woon comme yàlla dogal na loola ngeen barkeeloo te ñaanal ko yàlla yàlla di ko président Macky Sall jëf moo yor boo leen paree carton jus yi ngeen wasaare ko. Ah! Thank you. yàlla ko yàlla xale xale waaw ñu ngi déglu ñëpp yàlla nañu yàlla dalal seen xel bu baax waaw di nuyu monsieur le ministre bu baax di nuyu le préfet avec beaucoup de diplomatie ñu ngi lay nuyu ak charisme bi nga yore dëkk ak ngëm-ngëm bi nga yore dëkk dal muy daaj dese sonn ci man la ñu ngi lay nuyu bu baax di nuyu sama c'est inspecteur départemental des pêches marines moom ñu ko waxee rek on sait le procédé jaxasoo nañ ak ñun def li ñu war a de inspecteur régional des pêches maritimes moom it di bay waaram démb ci biir bi ngi fi di xool situation bi la demee nekk ñoom nekk bu am solo ñu entrepreneur bi ñuy waa dëkk bi ñuy jigéen ñi ñuy taxaw président Abdoulaye Diouf di ko président de waaw suufee ah président Serpent assainissement mooy yor usine glace bi yaakaar naa ne kon dëkk bi daje na ak xale yi ñu soog ñëpp a ngi fi taxaw ku ndaw ñu di wax nag ni ministre maa moom am ñu problème daje nañ waxtaan ay kilifa yu mag ñoo ñu boole ñu daje waxtaan bi waxtane comprendre nañ dañ guddi waye une heure du matin do dalal xelu maam mo ko wax so ni ko mak di wax mais man parce que liñ ko waxee rek man li ma amal njëriñ mooy géej yi baax li ma amal njëriñ mooy domaine yi baax ak RDPC du ministre xam ne du ñaan ko 1000 francs damay wax sax bu soxlaa ci tefes dima defal ma defal ndax loolu mooy ànd bu sincère. mu nekk ku dëgg wax naa ko biro waxante naa moom lu bëri. mais wax naa ko bureau. dëggu gi. diplomatie bi toog nañ ma wax ko mbooloo toog ma wax ko. parce que rek mooy napp bu dem ca kanam. kon te bu ñëwee ci suñu bi euh, situation yi mairie di dund. metti lool entrepreneur bi ñëw def ci lu mel nii ay tabax am fi ay infrastructure yu bëri am fi yàqu. ñu ngi nii taxaw amatuñu toilette ñu demee ndox bi ñu ndox xam nga fu fu mbooloo mu daje day mel nii ndox bi dañ ko coupé amatuñu ndox euh, infrastructure yaa ngi nii dem nañ gox mbaaj dem nañ Kafantou dem nañ feneen yaakaar naa ne région de Dakar lañ ne tey kon jàpp naa ni liggéey bii fi nekk ak situation bii mu nekk nga jàppale ñu ci ba mu réussir dina am solo parce que ñii day bi ñuy daw. xale yi jàng pour lu ñu dund seen jëkkër yi dafa am ñu AVC kër yi retraité nañ chômage bi bari na ñu ut lu ñu kon ñoom ñu di ut lu ñu dunde ñu defaral leen ci bu am confort dafay am solo te am nañ ci yow yaakaar ndax dañuy waxante maag moom chaque jour ba biig ci guddi gaal yi jàpp bisaawu lim ci def xam naa ko xam na gaal gi réeroon lim ci def xam naa ko xam na guddi gu jot maag moom ñu ngi waxante bu biig ba minuit di waxante parce que comprendre na ni man li ma intéressé mooy napp gi dem ci napp kon amuñu benn man dalal xel waa dëkk bi xam mhm. ni suma ministre la te li mu yor mhm. moom dañ ko ko jox mhm. pour mu liggéeyal réew mi de tegu na ci yoonu liggéey réew ndax groupe yi fi gën a am solo ci napp gi daje naa ñun keroog la mu gën a frappé daje nañ deux heures ba trois heures deux heures ñu discuter mu nangoo toog déglu ni loolu kilifa moo li ñu naqari woon yëpp ñu wax ko ko mu wax ñu li war a mën a ne ak lii nekk bi ma ci gën a frappé yi jàpp bato jàpp na yàqal na ay mool mu génne trente huit millions cinq cent ak dix mbëtëru ga ñu wooma ma ak ñeneen ñu àndandoo bi ñu demee lu ñu joxe xaalis bi danaan taxaw leen yéen ñu joxe xaalis ñu dem lomp ñu joxe vingt trois millions cinq cent dem Fass Boy man maa leen wax bi ñuy dem Fass Boy ñoo dem Fass Boy te LG te ñoo dem lomp mu génne dix millions ak dix mbëtëru woo ma ci guddi gi jox ko waa Fass kon loolu ndam ci napp kon defee loolu loolu lépp maa ngi ak moom mooy bëgg joxante loxo pour napp di dem ci kanam ñu leen di ñëwee fii ma dara ci xel waa tamit problème amu fi bi fi am fi ñu bi mooy suñu dëkk bi nga defaral ñu quai de pêche bi mu nekk quai agréé defaral ñu suñu dëkk bopp. man bu doon ñuy wax lu baax ci man rek jóge naa bu dégg borom doole yi d'accord ñu man bitim réew yi ngeen di wax d'accord ñu man pàcc boo jël d'accord ñu man parce que li may def mm-hmm. jàpp naa li may jëmale secteur bi ci kanam te secteur bi bu jëmee ci kanam économie Sénégal xam nga ni li ñuy wax xeetu kon nag na ngeen a gën a jàpp gën a teg affaire yi ci dëgg kii mu ma doon jël dem benn vidéo man lay laaj xam naa gisoo ko waaye ma yéene vidéo ma ko defee vidéo yi amul benn njëriñ parce que man li ma ci wut mais nag permettre yi ba ne ci ma wax ak yi xam nañ man daal lenn rek moo ñu xam vidéo ban jour lañ jógee parce que booy notifié nga mën wax ni bésu sàngam heure sàngam yaa ngi nekk heure sàngam yaa ngi kon échange bi dafa am solo dafa am solo euh, état yéen la ñu nekk état sinon c'est abstrait dañu ne la pour les populations ak état ki ñu fi teg loolu la ñu sax sant ñu voilà li ñu daanaka mooy liggéeyal leen Sénégal yi que boo tax ñu boo fii loolu dama ciy profité parce que yéen wax ak maire tàccoo gi yooyu nañ yaakaar ci yéen parce euh, damay wax yéen ñëpp ci ne chef d'entreprise yaakaaroo ci kenn. ci liggéey nga yaakaar. xam nga kooku mel noonu boo ko wooyee ci dëgg gi nga xam ne moo ëmb liggéey war na yomb. war bu doon koo xam ne dafa déggoon ci ñaar léegi ci ci laay dox di nañu teg lépp loolu. gën jëm nag nii. li fi ñëwoon démb amatu. ñi koy wuti dañoo bëri. Sénégal indépendance c'était 3 millions d'habitants. ci 3 millions yi ñaata tey aussi yàlla sax ñaata gaal ak moteur bu ñu amuloon démb bu puissant ñëwee wii wutal yëpp foofu ma sax ay ay bari man maa ngi yi doon kon ah il faut il faut il faut ñu gëm ni liñ fay wuti bu ñu ñun suñ bopp bu ñu ko aar le plan sens te économie bleue la ñu wax économie bleue maanaam dafa am solo xam boo amoon gaalu trente tonnes boo demee fee da ngay tëj trente tonnes du la taxe kenn du la taxe c'est une ressource nationale mais nit bu demee mu ko neex lay jël ñëwaat boo laalee rek gars yi ne pandémie amul pandémie bu nekk Covid beeg matin boobu ñu laal. condition populaire ak yeneen yi. day métti au départ mais changement dafa baax pour que ñu yaa ngi naan chaque parti il faut mu am reconversion. on est un pays sahélien yow mat léegi problème la ci yow. pour nga am mat problème la. plus plus en plus say doom sa saa ni mu compliqué day gën a tàgg seen donc diggante bu reconversion amul sacrifier ay génération kon fu ñu am commencé reconvertir lu ñuy def jéem a xool lu wàllu jaara bi formation nouvelle technologie yaa ngi ñëw tey gis na ni man man bu jëndee portable mënuma ci dara damay woo sama doom bi jënd na te cinq minutes mu réglé te jàngu ko parce que boo bëggee sa doom ñu def exactement la nga naan def wala maam yaa ngi koy sànq parce que àndul ak jamono. donc yooyu dinaa si ñëwaat. bu gën a toog mën naa leen fexe di toog. Euh, politique mais politique quelque part moo ñu politique moo tax

Aliou Ndoye inventé wu dara dafa ne yoon bi lii la wax respecté la yoon. kon am na ñoo xam ne arrangé lu ñu def loolu bu ñu ko weesoo ñu xool la de mais déjà suñu yoon réew li mu wax li ci ñu teg ba après ñu évalué ndax yoon bi li la wax yoon nga tegee ne di gérer sa intérêt te yoon nekkul jalaje jala ngay yàq te li ngay lopp et cetera loolu bu ñu ko réglé loolu am na nga jot ba ay wax yu neex dem xam nga rajo wax wax wax yàlla yàlla ngi ah koo xawaat ci booloo defu defu ko waaw ah, yàlla weer billaay gëstu lañ ci gannaaw wallaay dëgg la man loolu amuñ billaay billaay parce que li ma gëmul du ma te rëyuma rëyaa boo xam ne mën naa nga ci njuumte ñu nit bu ñu woon ma ne yaa ngi ci njuumte man ma fàttali si. boo wane ni lii baaxul li ngeen jàpp waaye day yàq léegi ñu teg suuf. parce que man ñëw fi kat yaa ngi moom boo di tàcc moom gën a ñëw ñu ah. te am na noo xam ne boo koy defal nit ki bu la yaakaarul rek desul këram boo ko rombee mu ñëw wala wala fa nga jàpp baax na il faut nga yaakaar kon nag yàlla nañu yàlla jàpp yàlla na yàlla def jàmm ci réew mi yàlla nag boole xolu doomu réew bu dee ci dëgg pour wàcc dëgg nag xam naa dëgg wax mais wax na lu li fi ne vraiment intérêt Sénégal kër nag doo ko tabax ci benn bés benn bés am na ay décision yoo xam ne da nga koy jël tey soo bi ñoo koy jël soo ko def mais chaque fois na yàlla kon nag maa ngi yegg fële. léegi li nga wax. fekk ñu mu yónnee woon pour ñu préparer laaj Ketchup yàlla bi taamu ko sax di ko def. muy yaay mais dafa dafa dafa rafet dafa jaar politique bu deful dara këram la donc pour jot tamit ñaari yàlla dogal na demuñu kii. waaw dafa am mool bi décédé. mu ngoog kii waaw capteur bi waaw dañu jël kii gisee keneen ko defal day mel ni daf ko def suñu taw si loolu di félicité entrepreneur bi di wax ne lii ñëw na si waxtoom te bëgg nañ ñu gën a yaatu te comme si plan bi sécurité bi gën a fii nga xam ne tey.

yàlla na barkeel ànd ak xéwal bu bëri ànd ak ñu am jëm bu bëri jigéen ñi di lakkat di yóbbu muy dem ba euh, Tokyo wala Corée wala euh, Japon parce que am na qualité boo xamante ne pour mu am euh, agrément ñu certifié que mu mën a dem marché wala sa taw waaw loolu fuur yi rek ko mën a def donc nag suñu jigéen ñi lu leen nit mën a jàppale dañ leen dimbali ndax bërëb bii lu leen di gën a defaral moom bu baax rek di leen di leen sant di kontaan bu baax si ñëw fii.